li ngeen di gis ni alxuraan karim la c'est alxuraan bi yàlla bind moo tax ma jël ko di leen koy waatal ci barki Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam je suis un victime victime laa ci Abdoulaye Diop xaas daf ma taq avec 2000 francs avec mbuusu guro avec son ami ñëw ba ci sama appartement jël sama localisation ñëw sama kër taq ma tëddee ma utiliser ma sànni ma ndax sànni mënul weesu ba ma ñibbisee ma demandé ko may ma divorce mu ne dee du ko ci dal vidéo yooyu ngeen di gis moom laa def di tout ba mu ne ma may naa la sabaat yéen jigéen ñi lan ngeen di wax quel est votre problème yéen maa gën maa leen gën fuuf ndax bu dul dara génn naa wane li xew gëmu leen kooku affaire la man je m'en fous de lii laa am ci li ma doon wax wat naa ko ci barke alxuraan karim bii Abdoulaye Diop Khass daf maa takk amatuma lu ma ciy tegaat nag c'est fini je rien à dire. yéen ñi di wax ne damaa ñaaw man maa leen dàq téeméeri ji ni ndax bu fekkee ne ñaaw rek ngeen wax xam nga bu ñu makkee ñi a rafet jigéen bu rafetlu defarul rek day rafet yéen maa leen dàq téeméeri ji ni yoon maa leen dàq téeméeri ji ni yoon maquillage ngeen di wax xeesal xool leen ma rek te kii lii du dara rek su ma ci boolee leen wax leen yéen foo leen jëm pour wan leen ne c'est pas l'appel ngeen di continuer di emmerder nit ñi. ci seen mentalité boobu ñi bind di suuf di wax ne Abdoulaye Diop xaas na la lay doyee laaj leen ko moom noonu la may doyee ba dugg ci man du man ngeen koy laaj de dangeen di dem ci Abdoulaye jóob xaas ngeen laaj ko lu tax lan la may doyee ba dugg ci man xaftal ma indi ma Sénégal utiliser ma ba pare di fen boo leen xeesalee lu leen neex mel yàq leen seen der man xeesaluma maquillewuma li ngeen di gis nii effet de écran la effet de écran la bu ma neexoon xeesal sol samay lant xëcc fi xëcc fee da ngeen maa dàq kenn ma kon arrêtez de des hypocrites nekk leen nit